soxna na soxna jaara moo di dey ba mi desi di beñaat teeram wa de foofu ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu bew wayu te wayu te forox te foog nga jelu ma fi des yàllal yow a yàlla jox barke soxna jaara Mountakha ñu ngi leen ñuy jëlee ziar bu baax a baax ñu gis ne eh, nekk ngeen fii bokk ci ñi nga xam ne ñoo taxawu teen bi ñu gis ne it eh, nit ñi ñu ngi ràng eh, fu sori ngir bëgg a dugg ci teen bi ñu bëggoon a xam yëg-yëg boobu ñu am lan moo waral loolu. waaw boo gisee ñuy ñëw ci teen bi ci nit ñi tamit ñenn ñu nekk jóge ci barab yi sori mu jaral leen lu ne ñuy ñëw di barkeelu ci teen bi loolu kon day tegtale ne teen bi teenu barkeelu la waaye teenu tawfeex la ndax. jeexiti ji nga xam ne moom lañ ci dabu mooy soxna jaar jaariyatullaahi kon day mel ni teen bi cosaanam maanaam moom fi la ne woon fi la ko soxna si fekkoon fi la ko lépp fekk waaye moom ji mi soxna jaar gi mu fi jaar loolu la ñuy dab waaye dabuwun rek ci ni ndox la comme muy ndox rek loolu moo tax tamit nit ñi mu jaral leen ku ñëw baraxaan ku ne fas yéene ëndaale ndox loolu nag du hasard ndax boo demee ci makkatal mu karama Euh, bu julli di aj kon xam na ne ndox lañu ñu indaale sëriñ muy sam-sam waaye loolu tamit ñu nemmee ko ci barab bii di Porokhane ñu fay indi ndox moom it muy euh, sëriñ ca waaye xëy na ku ku ku dem ba Touba tamit am na ndox mën fay barkeeloo muy euh, aynu rahmati kon ñetti ndox yooyu day mel ni li Serigne Touba nekk Xaadimu Rasuul rek moo tax mu rey ko ca bu Mukarrama kon moo tax ndox mi daal ndox mu am solo la ci doomu nag waaye maanaam nekkul ni dañ ko jagleel dara. naan bokk naa ne dana faj nangam ak bokk naa ne danga am nangam ak euh, loolu mu amu ci waaye na kenn ku nekk fam fam aj ay soxlaam rek te parce que toll ko foofu loolu la cay am ndax ndax ndax ndax ndax ndax am na année boo xam ne yaakaar naa de bu dul quinze di 2016 mm, ñoo xam ne fii la ñu fekk euh, daa diraag booy accident ni ma euh, ñun ay taalibe Seex lañ daan wax ni ma nag léegi maanaam dañoo dégg ñu ne soxna jaara kum woo nga ñëw waaye démb amuñu woon paas waaye ci ma di ñëw léegi daal ni ma damaa a dugg nag ci jukki ci biir teen bi jukki ni ma ni ma sëy naa ñaar fukki ak juróom waaye man amu ma doom kenn ki tey dafa mel ni dafa maa gaaral ni mboole moom ab taxawaayam dafa yàgg daal te amul borom kër ay rakkam ak ñëpp danoo da kii waaye yàlla dogal mooy bi mu duggee ci biir bi mu kiyee bi mu génnee la la la ci ci biir teen bi bi muy jukki xëy mënta woon a jukki sax ndax kenn ki Cees dëkk kenn ki Puuta dëkk ndax nit yi taax yi rek waaye ci foofu la ne bàyyi naa Seex Ahmad Tijaan Sariif Euh, daa daan ni am na média yu ma ko wax daan ni maa ngi seeti ba yeneen média yi ci biti wax ko fa loolu tamit ba mu amee far yàlla dogal ci weer wii rek comme weeru Kazu Rajab nii rek mu ni moom yàgg naa màggal si Kazu Rajab waaye li tax loolu tamit moom moom moom dinaan ñëw rek toog barab bi Sëñ Fallu mu ni ma ne màggal gii bi ñëw ma yow laay dalal ñoom ñaar ma jël seen numéro waaye bi màggal gi waa jib si nag ma woo leen ba xam ñoom ci ban situation lañ toll waaye ki ma njëkk nekk Thiès dama ki ma njëkk woo mu nekk Pout daf moo ko wax mu ne ma xam naa màggal gi bëgg na ñëw waaye damay def réception dimanche ndax màggal gi. waaw kon kooku loolu loolu la ci façon. bi ma ko laajee keneen ki des tam dani ma xam naa moom sax waroon naa ñëw waaye yaram moo xaw a diis. kon kon kon kon loolu day tegtale ne te te léegi ñoom loolu lañ fendi woon jombut keneen andiwaatoon na fa sax métti loxo jombut keneen andiwaatoon na fa métti bët moo tax ajuñu ko pas-pas bu doomu aadama bi mu ko toll rek la waaw. kon daal mën nañoo xam ne euh, teen bi nekkul ne dañuy wax jàngoro ji lay faj wala lee lay faj waaye mën naa def ci sa dund maanaam loo xam ne leneen mënu ko dudul moom mii di teen bi. amul tawat amul leen waaye soxla yi sax des koy faj ñu gis na it euh, yéen yéen a taxaw euh, tey teen bi nit ñi fees fi dell euh, comme ni nga ko waxee amul tijaan amul murit ñëpp di ñëw di faj faj seen rajo ñu bëggoon a xam teen bi moom est-ce que toujours noonu lay demee est-ce que it yéen yéen a koy taxaw saa yu ne voilà. Ah, waaw maam teen bi ñun duñ ko taxaw saa su ne teen bi am na ñu fi nekk ñoo xam ni ca ba teen bi sosoo ba léegi ñooy cosaanul ñooñu di ko taxaw. ñooñu bi demee ba a mënatuñ wala yàlla dogal ñu dem ba faatu seeni doom la ko Serigne Moustapha Bassirou dénkaatoon mooy rek comme ni daara mi di baaxoo ndax nga xam ni fenn fu nekk lu fa sa waajur doon def bu fa jógee ñu xool kenn ca njaboot ga mu taxaw ko ñoom nag ñoo koy yor jamono joo jëpp ba Magalu Porokhane Magalu Porokhane bu dikkee tamit danañ teel a waaye ñun ñoo ngi jot caabi euh, teen bi ak autorisation teen bi ñoo ngi koy jot ci talaata ji talaata ji nag ba ajjuma ci heure bi ñun ñoo yor teen bi sunu paree nag ba ajjuma ci heure bi daal di tëjaat suñu teen jëlaat suñu barrière daal di joxaat ci wert ci bi daal di ñun ñi nga xam ne ñun ñooy donga yi daal di toog ca dal ba xaar ndigal loolu lépp nag suñu yoon du ci nekkaat ba admidir si ñi nga xam ne ñoo ko teewee tamit di ko liggéey nekkul ne ay nit lañ composé rek dégg nga daje waaye day am ñoo ay dong lañ ay dongay dañ ñenn ñi danoo jaar ci dongay teer bi dana daay teer bi ba yeewee ko ñenn ñi danoo jaar ci daay teer bi ña nga ca jógeegul ñenn ñi danoo jàng jaar ci daay alxuraan ca lañ yeewi ko ñen ñi ba tey ñu ci daal alcorane di jang di jàngale yeewu ko gun loolu man ci la bok kon ñoñu nak lañu ñuy composé daje leen génn benn baat teunk leen moy ahlu tarbiya wa tarqib li kulli man yaxtam bi xidmat Cheikh al Xadim moy kon mbotay gi xamni mo lekk mo lekkale bepp do nga donga xamni tarbiya nga ci suñu mëntaan suñu basiru kon kon ci gole loolu nak bu deme ñom ñoy bu ñu ba tollu ci moment bi dañ koy séddale benn wàll gi day nekk ci teen bi di doxal genn wàll gi tay yaakaar bu ngi demee barab ba da ngeen fekk ñi doxal waye biir keur sona jaar ken umpale woni dafa am appartement doomi sin tubaay ñu leen di taxaw di leen doxal seen yitté ak seen aajo amna tay ñu fa taxaw diko def lolu ci la bok su ko defee nag ñetti assemblée mom mo am ci ci ci ci ci ci ci ci bi ci liggéey bi. Ah, jërëjëf macha allah ah, ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi sëñ Mountakha. waaw kay kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp dem ak jàmm dikk ak jàmm tey di yéen di leen sant bu baax ndax tey lii fi ne manees na ko boole rek ci ah, woote bi yonante bi ndax fi sa kàddu toll fii ci Porokhane di ko wax diggante bi ay junni junni junni nit euh, man koo yëgandoo maanaam kenn ku nekk buñ la yónni woon ci moom yaakaar naa ni doo a gont dem def ko waaye kon lii taw tawfeex la rek ci réalisé soxna jaara soxna moo di day ba muy desi di beñaat teeram wade foofu ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu beew waaye nga te waaye te faral nga te foo yàlla na fi des yàlla yàlla